asalaamaaleykum sama gars ñi tey le samedi 7 octobre 2023 pour delloo sax ak yéen seen actualité géopolitique mondiale bi nga xam ne benn ponk lay doon nekk euh, song bii nga xam ne kuy fraction bu ñuy wax Hamas song na ko réew Israël mu nekk song bu métti bi nga xam ne amal na ko si territoire israélien bi nga xam ne lim bii nga xam ne provisoire na wax nañ ne lu mat cent israélien ñàkk nañ seen bakken ba pare am na ñu bëri ñi nga xam ne ci askanu Israël jël nañ leen ay otage rawatina ay soldats ak ay civils yi nga xam ne waa Hamas jël nañ leen lii nga xam ne mooy otage lu waral song bi nag fraction bii nga xam ne moom mooy Hamas moom moo ko amal te wax naa leen ne Hamas Ismaël Haniyeh moom moo ko jiite ñoom ñoo xëy tey ci suba wax ne sànni nañ lu mat 5000 roquettes ci fii nga xam ne mooy Israël ba pare amal ay song yi nga xam ne song yu bëree bëri la amal nañ song roquette amal song bi nga xam ne ci géej gi la jaare am song bi nga xam ne ci suuf si la jaare donc mu nekk nag bett bi nga xam ne bett nañ ko lii nga xam ne mooy réewum Israël pour yéen ñi nga xam ne yàgg ngeen maa suivre defoon naa benn vidéo bi ngeen di gis nii le 3 janvier 2023 pour wax leen ne dellu soit bii nga xam ne Benjamin Netanyahu dellu soit na ko ci nguuru Israël en tant que premier ministre dina yokkat tension yi maanaam fitna yi ci fii nga xam ne moom la ñuy wax Moyen-Orient ndaxte xam ngeen ne moom dafa am benn politique boo xam ne politique bu agressive la te dafa lëkkaloog lu ñuy wax extrême droite israélienne ba leen gis kii ci foto bi kooku mooy premier ministre israël bi nga xam ne moo commencé woon def provocation yi dem ci fu ñuy wax les mosquées d'Al-Aqsa di ko visiter te foofu dafa moon statut ba nga xam ne statut neutre la mooy maanaam képp ki nga xam ne da bokk ci yahudi waroon di dem foofu noonu parce que euh, dafa bokk ci lieu sacré ñuy wax ci lislaam te gis ngeen ne politique agressive bii nga xam ne Israël amal na ko dafa jëm ci ay colonisation yi nga xam ne mu ngi ko doon yokk jëm ci fu ñuy wax Cisjordanie waaye tey nag dama defal benn jàngat bi nga xam ne moo tukkee ci lii nga xam ne Hamas def na ko xam ngeen ci àdduna bi jàngat bu njëkk bi mooy amul benn système de sécurité bii nga xam ne amul faay mooy maanaam nit mënu koo percer loolu loolu moo dal Israël ndaxte Israël bokk na ci réew yi nga xam ne bu ñuy wax innovation technologique militaire moom mooy pionnier moom moo njëkk a créé lu ñuy wax drone de renseignement bi nga xam ne mooy day gis guddi di gës bëccëg. Israël moom moo créé euh, euh, système d'espionnage bu ñuy wax Pegasus bi nga xam ne moom mooy espionner ay chef d'état lépp li nga xam ne dafay jëm ci technologie militaire lépp li nga xam ne dafay jëm ci renseignement militaire Saal bokk na ci. lii nga xam ne bokk na ci précurseurs yi mu am servicement de renseignement bi nga xam ne nee ci gën a performant ci àdduna bi ci la bokk te tey attaque bii nga xam ne Hamas amal na ko gisu si dara mooy maanaam mënu ko woon gis loolu mooy won ne euh, sécurité à cent pour cent amul ci àdduna bi wala faille sécuritaire amul ci benn système bi nga xam ne da nga koy teg yaakaar ne keneen mënu koo dund gis ngeen ne réew Amérique dund na ci lu ñuy wax attaque Wall Street Central ci yi nga xam ne alqaida amoon na ko ñu laal xolu réewum États-Unis si ñaari tuur yi nga xam ne ñooy mandargal puissance réewum États-Unis ak yeneen réew yi nga xam ne aussi jot nañ dund li loolu pour wax ne système sécuritaire bi nga xam ne dafa mucc ayib wala nga yor ngànnaay bi nga xam ne yaakaar nga ne kenn mënu koo faagagal wala nga yor arme bi nga xam ne kenn mënu koo faagagal wala nga nekk njiit bi nga xam ne kenn mënu laa faagagal loolu daa fekk ne xamoo ñan ngay jàmmaloo ak benn détermination la ñu am léegi nag ñëw ci opération bii nga xam ne Hamas amal na ko ci fii nga xam ne mooy Israël xam ngeen ne yàggul dara kii nga xam ne mooy Mohammed Ben Salman dalal na benn ministre ci réewum Israël ba ñuy wax ne rapprochement am na ci diggante Israël ak lii nga xam ne mooy Arabie Saoudite ginnaaw moom bu mu juboo ak réewum Iran bii nga xam ne noonoo doxoon na seen diggante bu yàgg-yàgg léegi réewum Israël mu ngi def ay rapprochement yu bëri ak réew yi arab am na juróomi réew yi arab yi nga xam ne Israël normaliser seen relation moom bokk na si Jordanie euh, Maroc euh, Bahreïn Égypte euh, Émirats arab uni réew yooyu yëpp Israël dafa normaliser ñoom ba jamono yi mu ngi waxtaan ak lii nga xam ne mooy Arabie Saoudite pour normaliser relation léegi nag xam ngeen ne Hamas moom yaa gën di jaamarloo ak lii nga xam ne moom mooy Israël te Palestine. wax naa leen ne quatorze fractions ñoo fa nekk yi nga xam ne dañuy jàmmaloog Israël bokk na ci Hamas bokk na ci Fatah bokk na ci Jihad islamique. léegi nag lii nga xam ne moo tax ba Hamas déclenché opération spéciale bi jëm na peut-être ci njort bi nga xam ne bu fekkee ne rapprochement dafay am ak Arabie Saoudite loolu mun a nekk li nga xam ne dañuy perte maanaam day gën a daganal. politique bii nga xam ne Benjamin Netanyahu mu ngi koy am jëmale si Cisjordanie ak occupation bi nga xam ne mu ngi koy def ak colonisation bi nga xam ne mu ngi koy def di nangu ay suuf yi nga xam ne réewum euh, Palestine moo ko moom moo tax ba mu déclenché lii nga xam ne moom mooy opération bi nga xam ne amal na ko mu nekk opération bi nga xam ne Israël xalaatu ko woon seen i service de renseignement yi nga xam ne nee nañ bokk na ci les plus performants au monde gisu ko woon tey gis ngeen ne situation boobu la arab yi la la di dund ba pare am ay limu otage yu bëri yi nga xam ne ay soldats ak ay nga xam ne Hamas teg na leen loxo. leneen li nga xam ne aussi am na ci contexte géopolitique mondial bi xam ngeen ne Mohammed Ben Salman wax naa leen ne def na rapprochement ak kii nga xam ne mooy réewum Iran waaye xam leen ne Iran bu fekkee na am na arme nucléaire ala kulli aali réewum Arabie Saoudite aussi. foog mu am lii nga xam ne mooy arme nucléaire mooy maanaam tiitaane bi nga xam ne mu ngi dox si géopolitique mondiale bi ak jeu d'influence yi nga xam ne mu ngi am teewul mu changé loolu tey moo tax ba tey réewum Israël dund lii nga xam ne dund na ko mu nekk mbir bi nga xam ne tar na trop parce que defe naa depuis guerre des six jours Israël mosul dundu bés bii nga xam ne tolloo nag attaque attaque bii nga xam ne tolloo nag attaque bii nga xam ne am na tey loolu nag pour joxe jàngat jàngat bi lenn kese la. képp ku yaakaar ne am na ab réew bi nga xam ne am na système de défense wala yoon na ay ngànnaay yi nga xam ne kenn mënu koo faagagal wala kenn mënul gis faay bi dangay ndax sa bopp loolu kese mooy jàngat bi amul benn réew wala amul benn njiitu réew bi nga xam ne yow tu es infaillible wala yor ngay ngànnaay yi nga xam ne lépp dafay dépendre ci détermination ki ngay jàmmar lool gis ngeen ne taliban yi nga xam ne askan bu tuuti lañ dàq nañ américains ñu daw ci biti ci fii nga xam ne mooy Afghanistan ñuy dawal lii nga xam ne mooy seen charia ak yeneen exemple yi nga xam ne gis nañ ay réew yi nga xam ne dañuy ëpp doole benn réew mais détermination bi nga xam ne askan boobu dañ koy am ak volonté boobu nga xam ne askan bi dañ koy am dañuy ñëw ba am dëgg mooy mu ngi wax li ñuy wax combat David ak Goliath David ak Goliath nag kii nga xam ne moo ëpp ngëm-ngëm kii nga xam ne moo ëpp pas-pas kii nga xam ne moo ëpp jom ak fulla la muy def yàlla da koy may toujours ndam tey nag tàmbali na benn beneen euh, buntu ubbeeku na ginnaaw bi nga xamee ne seen xarit Vladimir Poutine mu ngi amal opération spéciale am ci réewum euh, Ukraine bi nga xam ne nee na du question suuf moo tax ndaxte réewum Israël euh, réewum Russie moo gën a yaatu ci àdduna bi waaye lii nga xam ne moo tax ñu jóg. mooy maanaam bipolarité bii nga xam ne wala dominance bii nga xam ne réewum Amérique bëgg na ko amal ci àdduna bi loolu kese moo tax mu jóg ndaxte ñoom amaat nañ beneen ngànnaay bi nga xam ne ñu ngi koy lancewaat ci àdduna bi parce que nee nañ am nañ benn missile à propulsion nucléaire defoon naa benn vidéo di leen wax ne leen fédération bu Russie bu Vladimir Poutine lépp li nga xam ne da koy présenté àdduna bi lu ci ëpp ay ngànnaay la mooy maanaam lépp ñuy dégg muy jóge ci. innovation ci wàllu ngànnaay la jëm ay Satan 2 ay missile à propulsion nucléaire ay mbir yi nga xam daal nekkul ay invention wala innovation yi nga xam ne dina jëlal addu dina jëriñ àdduna bi yëpp li ci ëpp daal ci wàllu ngànnaay te ngànnaay xam nañ ne lu muy jëriñ mooy song guerre wala fitna wala ay désastre wala ay